beneen groupe bi ne réew mu nekk walla gox bu nekk ak seeni seenu weer ñoom tamit seen tegtal mooy alxuraan ak sunna ci loolu euh, dem nañ ba yenn ti boroomi xam-xam ñoom dem nañ ba wax ni euh, distance bi diggante weeru ak euh, diggante dëkk ak dëkk feeg mottul lu mot vingt deux mille deux cent vingt six kilomètres vingt deux mille deux cent vingt six kilomètres ne na fekk distance bi motul loolu kon mënoo basé wu ci ñoo ñu woor kon mën nañu wax ne kon li nga xam ne mooy sunu gox yi Mali Sénégal kon ñooñu mën nañu ànd woorandoo kon bu ko defee loolu daal ñu ngi ciy gërëm imaam ci leeral yi ndax lii day tekki ne sunu mag ñi lépp loo xam ne ñoom ànd nañ ci rek am na ay adilla ilmiya am nay tegtel ci xam-xam ndax it ni mu waxee ci abdullah ibnu abbas nga xam ni ñëpp nangu nañ li ko yàlla mayoon ci xam-xam bu nga xam ni seyduna muhammad dem na bu ñu ko wooyee xibrul eh, umma li muy tekki mooy kon kooku référence la ci lu ci ci diine ji kon bu ko defee loolu nañu ci jàpp bu baax a baax di gërëm oustaz Lamine ci leeral gi gannaaw bi ñu baree bàyyeekoo nag ci laaj boobu ñu indi beneen laaj boo xam ne defe naa ci la ñuy tëjee jataay bi te mooy gannaaw bi ñu seenoo weer ba gis ko yàlla àtte ñu war a woor kon dina jaadu ñu xam ñi nga xam ni lislaam may na leen ñu bañ a woor ak ñi nga xam ne lislaam may na leen nit bu fekkee ne dañu am gàllankoor ci bañ a kon li ñu tuddee ñan la lislaam may ñu mën a dog ci koor gi ci biir dog gi am na ñoo xam ne dañuy fay waaye am na ñoo xam ne duñu fay loolu bëggoon nañ mu daal imaam nga leeralal ñu ko ndax comme dañu dem ci weer boo xam ni ñi sant Jóob ak euh, sunu mbokk joolaay ak pël yi dañuy profité bu weer wi ñëwee rek ñu commencé wut ay gàllankoor kon dana jaadu ñu xam ñan ñooy ñi nga xam ne lislaam may na leen ñu bañ a woor ak ñooñu bu fekkee woor nañ ndax dañuy fay ak walla ñi nga xam ne bu ñu woorul duñu fay kon yooyu bëgg na daal oustaz eh, fadilul imam nga gën koo leeral leeralal ñii déglu ndax it Sénégal fi ñu toll coow li bari na ci réseaux sociaux yi trop te itamit nag alquran la mu waxoon ne fasalu ahla dikri in kuntum la taalamoon bu ngeen xamul da ngeen di laaj borom xam-xam yi looloo tax nag yow ci nga xam ne ci borom xam-xam yi nga bokk kon dana jaadu ñu laaj la nga waxal ñu ñan la lislaam may ñu war dog ñu ngi lay gërëm bu alhamdulilah dafa mel ni ñi nga xamante ne moom la yàlla may ñu mën a dog ci weeru koor dafa am ñaari xaaj benn xaaj bi dañ leen ko may rek pour mu benn durée bu gàtt boo xam bu jeexee mën nañu reprendre seen corps xam ñoo xamante ne dañ leen ko teggil ci boppam may nañ ko ñu ñu ñu bañ a woor te maye boobu kenn dootu ko nangu bi ba ñuy faatu dootuñu woor ndax dagan na ci ñoom ñaari xaajo yooyu première xaaj bi mooy bi nga xamante ne dañ leen may may bi kenn dootu ko nangu dootuñu woor lislaam teggil na leen koor gi mën nañu dog bokk na ca ki nga xamante ni dafa feebar feebar bi doon feebar boo xamante ni mënu ko wooraale médecin yi wax nañ ko ne docteur yi wax nañ ko ne feebar bi moom kenn mënu ko wooraale boo ko boo ci wooraale rek loru te it feebar bi toll na foo xamante ni it amatul dellu gannaaw yaakaaruñ ci mu wér comme ka feebar na feebar boo xam ne yaakaaru cee wér di xam-xam indi wér ci loxo yàlla nekk waaye teewul xam-xam bi yàllaa ko jàngale wér am nañ yaakaar ne dootul wér te mënu koo wooraale islam ne ne teggi nañ la koor nu muy def mudd rek lay xel di joxe weeru koor wu ne mu génne mudd joxe jour bu ne boroom xam-xam yi nee nañu di gën mooy jour bu ne mu génnee am na ñeneen ñoo xamante ne nee nañ bu léegi bu ko neexee sax trente jour yëpp mu calculer ñaata la génnee ko jox ko miskin yi parce que moom moom dootul woo chaque année noon lay def ba ba yàlla di ñëw ak mbiram keneen ki mooy koo xamante ne feebarul sax ay dafa lot dañ doon mag moo xam ne dafa dem ba jeex dara jotu ko feebarul waaye dafa dem ba jeex tàkk dafa lot yàlla bi amatul kàttan pour mën a woor boo ko xoolee amul benn feebar bu ko tere waaye nag am na feebaru lot kooku it mu wóor ko ne bu feebaree mën na loru te it li des ci dundam amatuñu yaakaar ne dina mën a woor bu boobaa it ku màgget daal la ko xamante ni feebar bi jeexital na ci moom bi mënatu la woor donte feebar bi wér na it yàq na ko bi mënatu la woor kooku it koor gi dootul woor dañ may nañ ko ko mudd rek lay xel di génne boo ñëwee ci ñi nga xamante ne nag euh, dañoo. dañ leen may ñu mën a doog quelque temps ñu koor gi dellusiwaat bokk na ca ki nga xam ne dafay tukki tukki boo xamante ni durée durée bi du mu war a sori distance bi ku ko doon tukki mën nga wàññi wàññi sax julli bu dee ci ngir Imam Malik li téere fiq yi jàngale defe naa quarante huit kilomètres la yoo xam ne distance boobu ku ko tukki rek parce que war ngaa wàññi say julli. comme noonu it boo tukkee tukki bu toll noonu bu la neexee bañ a woor lislaam may ne la pour nga dog kon tukki ndax as safar qitaatun min al azab sang bi sallallahu tukki dafa metti dogit la ci mbugal léeg-léeg nit tukki rek daj ca coono yu bëree bëri tax lislaam ne kuy tukki rek may nañ la nga dog keneen mooy koo xamante ne feebar na waaye wér na ko ne feebar bi day wér feebar bi day wér lislaam ne mën nañ la may nga fe nga fe nga nga nga nga dog bés boo ñibbisee nag bés yooyu nga dogoon danga koy fay fay ki tukki bu ñibbisee day fay ki feebaroon te feebar bi di wér bés bu wéree dafay fay keneen ka ca des mooy ki nga xamante ni dafa jigéen la dafa gis mbaaxam wala mu amoon doom deret jooju di génn ci moom ñu di ko tuddee deretu gisin ak deretu mbaaxu jigéen waaw euh, alxayd bërëg ñaari deret jooju li fekk mu ngi ci moom dootul woor dafay bàyyi koor gi day bàyyi julli gi ñooñu nag bu ñu demee ba satit incha allahu taala dañuy fay seen boru koor yooyu waaw kon daal boo xoolee eh, ba au li nga xamante ne bi xanaa bi ko tëj mooy koo xamante dafa ragal eh, ak dee wala boog yàqu nga xamante ukriha alal alal ki nga xamante ni dañ ko forcer te bu def bu dogul lu ne mën na ko cee dal euh, mën nañ ko ci duma sonal ko ci boobaa lislaam may na ko feebaru dara jotu ko waaye dañ ko forcer te bu ko deful alkandem xejam na ci am xej na ci waaw lislaam dina ko may mu mën a dog bés bu demee ba génn ci loxo ñooña bor yam ci amoon tabaarakallaa mu fay ko waaw kon daal boo xoolee ngant yëpp dafay dellusiwaat ci yi nga xamante yàllaa koy teg nit ngant yi dafay dellusiwaat ci yi nga xamante ne yàlla la soob mu teg la ko waaye dul nit di teg boppam waaw bés boo ko kereelee sa bopp rek dootul dox waaye yàlla lay soob mu teg la mbërëg bi wala teg la gësin bi wala bu teg la feebar bi wala tukki bi rek moo ci nekk loo xamante ni yaa ko sabablu ndax am na ay soxla yooyu doxi yeneen yi des yëpp yàlla la ko forcé moom mi la ko forcé nag tax na mu may la ruxsa nga mën a dog daal ci li mu wax daal dafa am rek loo xam ne dafa ñëw ci suñu xel moom la ñuy jeexale rek kebaa caméraman bi ñu nga may ñu rek ñuy yokk ci benn laaj bu gàtt rek te mooy e, seetlu nañ bu yàggul rek ci réseaux sociaux yi benn waay def benn ifta ci ne feebar bi ñu tuddee coronavirus bu ci docteur yi xoolee ne feebar bi kat boo woorul boo wooree sa puut bi bu amul ndox yooyu ñàkk loolu mën na yóbbu nit ki ci feebar bi ba mu wax ne kon su boobaa mën nañ aj koor gi am na nag ay boroom xam-xam yu ci commencé woon doon doon doon wax e, moo tax ñun ñu buggoon la laaj rek est-ce yaakaar ne bu ma wooree feebar est-ce que loolu sharia may na nit mu bañ a woor ndax it bu fekkee ne alxuraan dafa wax ne bu fekkee ne ki ñu ñu ko may aw maridan la wax wala mu feebar waaye est-ce que koo xam ne nag moom feebaragul est-ce que kooku sharia dina ko wax ne bu mu woor loolu bëgg nañ daan mu leer ndax it eh, Sénégal la ñu nekk te am na ñoo xam ni eh, seen àll wa bëttul bu ñu déggee loolu rek mën nañ ci basé wu ñu ne ah comme daal coronavirus bi la ñu nekk kon daal du ma wàññi du ma woor Eh, koor yàlla mi bind jaam bind jaam bi moo ko ko sant xam na it li jaam bi àttan mu indi ay critères yu leer yoo xam ne dafa ne kii dog nii lay def lii moo koy dal mu door ko mu door a mën a dagan pour mu dog moom mi bind jaam mba mooy wax dafa ne in kuntum ala safar bu dee da ngeen tukki aw kuntum maridan wala ngeen tuddoon koo xam ne ku feebar ku feebar la wax nit ki feebaragul fikra boobu mu génnee ak raay boobu bu doon mooy dox nit dootul war ci àddina bi ndax ni ni corona doone feebar noonu la ko sibiru doone feebar noonu la yeneen yi xeet yi yëpp de doone feebar ni corona di reyee noonu la yeneen xeet yi di fe kon bu dee feebar boo xam dalagul nit yi feebar a ngi fi nga ragal ne daal ku mu dal mën naa mu lor la tax rek nga ne na ñëpp bañ a woor ndax corona bi kon li des ci àddina bi koor dootu fi am ndax feebar yaa ngi fi ni corona dina feebar noonu la yenn ñi nekk feebar alquran la mu wax dafa ne ku feebar te ki feebar ba pare yit wax nañ ko ci njëlbeen bi du yow yaay jóg ne damaa feebare damay bàyyi koor gi te ngay seeti ñu spécialisé wu ci loolu sa feebar bi ñu xool la ba xam ne yow mi sa feebar bi nanguwul koor àndul koor ñu door l'islam door laa wax ne bàyyil koor gi paa nga toog rek ne dama feebar bàyyi koor li nga wax léegi diine dafa di loo xamante lu ci nit di wax am na xaar xalaat bu baax jàng bu baax ba xam masala bi boroom xel lay waxal waaye du boroom xel la ko boroom xel lay waxal waaye xel du ko doxal cest à buur yàlla diine bi mu koy wàccee ay text yu leer la def leen lii def leen lii def leen lii ki ko mën a dégg nag mooy boroom xel mais pas xel xalaat yi rek ne sama xel daal lim ma jox lii ak lii la loolu nag dafa bari ci ustaas yi nga xamante ne xëy na jaaruñu ci daal dama yaakaar ne ko wax dafa dama yaakaar dafa jaaru ci daara ji mais bu jaaroon ci daara ji jàng li nit ji fi jàng du gisee noonu te monde arab bi ñi nga xamante ne gis naa ne seen xam-xam bët alamul islam yi sax laay wax du ma wax monde arab bi yëpp donc yem ci mais alamul islam yi monde islamique bi yëpp ñi ma gis ñu seen xam-xam bët c'est-à-dire bari xam-xam ànd ragal yàlla teg yàlla seen kanam ñoom ñëpp ànduñu ci gis-gis bi mu am waa Azhar génne nañ seen fat fatwa Arabie Saoudi génnee nañ seen fatwa suñu magu dëkk bi it ñoom ñëpp ànd nañu ci fatwa wone ne coronavirus manul tee nit woor buy daw ci jaww ji rek nee nañ nañu arrêté koor gi kon moom xam naa ne daal benn mu doon njuumte foofu rek laa koy mën a qualifier sax parce que dafay am njortal bu rafet ci moroomu jullitam njuumte rek lay doon ci moom mu génn ba xaat euh, ifta boo xamante ni fatwa boo xamante ni tegul ci lislaam lislaam daal nanguwul xalaatam boobu lii lañu seen woon ci moom ci li nga xam ni indi na ko ci ay réponse ci question yi ñu ko laaj fa tabarakallahu li mu ci indi yëpp ci wàllu tontu bu ci nekk rek dina indi ay adilla ilmiya maanaam toogtal yoo xam ne da koy teg ci xam-xam waaye du ko teg ci xelam ndax mooy li mu wax léegi rek mooy diine ji kenn du ci demee xel mu rafet diine ji ay texte la yoo alxuraan ak ak sunna sayduna muhammad kon képp ku ciy wax rek war nga am xam-xam bu mën a dem ci ifta ndax itamit ifta dafa am ñu ko war a man ñi nga xam ne ñoo jàng li ñu war a jàng yëpp ñooñu la ñuy wax ne mën nañu ubbee ci diine ji waaye diine lislaam kenn du ci demee xel kon bu ko defee oustaz yéen ñu lay gërëm ci kàddu yi nga xam ni leeralal nga ñi nga xam ne ñooy seetaan bu ëllëg bu koor gi ñëwee bu fekkee ne nag ñu déglu nañu incha allah du tere ñu woor bu ko defee rek sunu kàddu bu mujj rek ñu jox la ci bu amee ay kalima axira boo mën a joxe ak nasaaih ay conseils yoo mën a joxe ci koor gi ñu jëm. Eh, baatu baat yu gàtt yi ñuy def rek ci conseil yi mboolem jullit ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu ñu fekkee ko jàmm te yàlla may ñu ñu woor ko te mu nangul ñu ko koor mm, mbir la moo xamante bu rëy la bokk na ci e, santaane yàlla yi gën a rëy e, buur yàlla subhanahu wa taala digge ci loo xamante ne diggewu ko ci benn jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla yëpp dafa ne nit ki moo ko moom ba mu des koor euh, koor bu dul koor jëf joo jëf bu ko yàlla nangoo mu ngi xool rek fii daraja jëf ji toll bu jaree ñu multiplier ko dix ñu multiplier ko dix bu jaree ñu multiplier ko cent ñu multiplier ko par cent bu jaree ñu multiplier ko sept cent ñu multiplier ko par sept cent fat soobu yàlla moo xam waaye koor nag dafa ne loolu amu ci amul fulandi amul leneen nee na koor man mii buuru jaam yi te santaane ko jaam bi def ko maa ko moomal sama bopp dugaluma ci malaaka bi di ko calculer yowmal xiyaam maa koy fayal sama bopp beneen bunt ba beneen hadis yonent bi sallallahu alayhi wax ni képp koo xamante ne koor ñëw na ba dem te amoo ci billet bu la dugal aljanna kenn gënu laa perte muy bunt boo xamante ne bu xasee ubbeeku ci jullit ñi xeetu xéewal yu dul jeex Hadj Ousmane loolu rek koor ci bopp nag ay ngëneelam ay buntu eh, waxtaan yu bari mën na ci génn ndax it eh, jullit ñi bokk na ci li gën a xéewal bi gën a rëy ci jullit ñi dina la may wér gi yaram dina la may lu baree bari fan yooyu it ci la ñaan di gën a dox parce que ayatul quran yi wax ci koor dafa jeex rek yàlla teg ci fi saasi fi saasi alaka ibadi anni fa inni qarib muy wane ne koor tabaarakallaahu ay fan la yu barkeel loo yoo xamante ni bu jullit bi yàlla maye mu fekke ko am na lu réy am na ñoo xam ne tey bëggoon nañ ko fekke te fekkewuñu ko ku ko fekke rek raw nga ku ko fekkewul ndax mën nga ci am tiyaabu boo xamante ne ki ko fekkewuloon du ko am bu ko defee nag dénkaane yi ñu ciy teg ci beneen côté bi mooy fexe sellal ko def ko ngir yàlla waxoon nañu ci njëlbeen ba ne pour mu wér il faut nga téye sa bopp ci liy dog koor ànd ak yéene def ko ngir yàlla koor gi mu wóor yàlla rek koy tax nga woor moytu it caaxaan yiy dox ci biir kii bi nga xamante ne sàmm sa bopp sàmm sa làmmiñ sàmm sa tànk sàmm sa lépp rek te xam ne yàlla dafa ne ay yaman maadudaat ay quelque jours la day jeex quelques jours yooyu nag boo ko respecté mu jural la ad yiwu àddina ak àllaaxira bi tax na mag ñi bu koor jatwaan ñen ñi sax dañ daan tëju seen kër rek dootuñu génn mais ba koor gi di jeex xanaa lu am fulla ak fayda waaye grand place yooyu yëpp dañ koy bàyyi parce que sàbbaal xeetu jaamu yàlla ni mu ni mu mel melu ko ci beneen beneen weer bi tax na xaj Ousmane ñu ngi ñaax suñu bopp ñaax jullit ñi jour bu bu jotee yàlla nañ ko fekkee jàmm waaye ku ci jéem a téye sa bopp ci yannat yi nga xamante ne amul njëriñ du la jëlal jëlal tiyaaba ngeen a góorgóorlu suñu kemtalaay kàttan ndax xamuñ ndax dinañ ko fekkee déwén te yàlla nañ ko fekkee ay kenn xamul liñ ciy teg nag ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di ñaan yàlla seen émission bii ngeen di def yàlla def ci tawfiq ak taysiir euh, bërëb bi ngeen di liggéey it yàlla yëkkati ko ba mu raw seen njort ba bokk ci bërëb yi nga xam ne ñoo gën a siiw ci àddina yi àddina bi te doon njëriñ loo xam ne dafay del tiwaat ci jullit ñi del siwaat ci askan wi euh, ñu ngi lay gërëmaat bu baax da ngaa baax rek waaye lii <laughs> lii ngay ñuy laaj bu la neexoon toog defal ko sa bopp parce que xam nañ ne la bu baax euh, macha allah dafay nëbbatu waaye bokk nañ ci fuure yi nga xamante ne cheikhun aarifun aalimun zahidun ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ko tawfiq ak taysir ak ñi nga xamante ni di nuyu suñu caméraman bi di ko ñaan yàlla tawfiq ak taysir asalaamaaleykum seen émission bi nga xam ne seen Senclic TV moo leen koy jox ci koor gi ñu ñaan yàlla rek yàlla ñu si yàlla yóbbu ak jàmm ko defee rek ci ñi ñu àndal mooy sunu caméraman bi mooy Keba Sané ñu gërëm ko sant ko ndax itamit dafay doog a wàcc waaye coono bi jàpp na ko waaye terewul rek mu def effort pour ñu ñëw rek jël si e, fadilatul imam fa tabarakallahu kon ñu ngi koy ñaanal yàlla moom it imam yàlla na la yàlla sàmm yal na yàlla aar la sa yitte ci ñaar rek lañ ko lañ ko xam ci moom mooy diine ji ak tariqa bi te incha allahu bu yi paasee danañ ñëw def ak yow benn émission boo xam ni dañ koy jagle ab tarixa bi ndax it am na benn rubrique boo xam ni commencé woon nañ ko jëloon nañu imaam imaam Diagne ci wàllu tarixa bi mais yooyu it dafay continuer te incha allah danañ ñëw ci yow ci wàllu tarixa bi incha allahu bu ko defee rek dañ lay jox rek nga def ñaan ñu tëj émission bi incha allah allahuma ya xayu ya qayb ya badi alsamawati wal ardi ya dal jalali wal ikram inna nasaluka bi annana nashhadu bi annaka anta allahu al ahadu faradu samadu alladi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad أن تسلي وتسلم على مولانا رسول الله الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم